باركت لي يا ربي في حروفي وخيرا وجدت بالمحروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد لي تبصيرا وتكريما السلام عليكم ورحمة الله mbokki julli di mbokki taalibe yi su ngeen déggee xaside googu xam ni jot nañu ndigal Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñu ngi ñaan sunu borom bàyyi ko fi te yàggal ko ak Serigne Bassirou Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ni moo yor kaddu gi yoonu murit di rakkam di taalibeem di jëwriñam ak Serigne am ni Mbenda xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Latif Diène xalifam Cheikh Issa Diène sëriñ Ibra Khoudia Mbacke xalifa sëriñ Mandoumbe waaye nag ci teewaayu kan ah sëriñ Mbacke yu fay mu yor kàddu gi yoonu murid fii ci ndakaaru waaye doon nag jëwriñu Cheikh Mouhamadul Mountakha fii ci ndakaaru doon jàmbaar lool doonub taalibe waaye jeex tàkk ci sëriñ Touba lan moo xew ah Cheikh Moustapha Kane jànkatu xasaayit Cheikh Moustapha Kane Masalikul Jinaan Cheikh Moustapha Kane ah animateur bu mag bi ci Touba TV moo am mbégte di leen woo ci cant gi muy cant sëriñam yaakaaram yaakaar yi ñëpp di Cheikh du Bamba ah kañ la 7 janvier fan fii ci usine ñaari tali ci wattu nag jumaa ju mag ji Cheikh Moustapha ne mu ngi ci woo ñëpp bàyyiwul kenn ku wax ashadu an laa ilaha illallah mu ngi lay woo ci bis boobu ah ñan ñooy invité d'honneur yi nag bis boobu sëriñ Fallou Mbakke moom sëriñ Mamor ak sëriñ Fallou Mbakke maane Cheikh Modou Abdoulaye Mbakke sëriñ Makhtar Mbakke moom sëriñ Mamor moom sëriñ Masamba ak sëriñ Idrissa Ndiaye Seyful Khadim sëriñ Muntaxa Kan taalibeb sëriñ Muntaxa Cheikh Makhtar Diouf ah moom sëriñ Saliou Wakane xaqan Cheikh Abdoulaye Camara Cheikhub Serigne Saliou ca Géejawaay Serigne Modou Fall Sénégal Bordeaux Serigne Dan Fall taalibeb Serigne Touba Serigne Cheikh Diop xéewal moom Serigne Fallou Mbacké docteur ak kan Serigne Mouhamadou Diop taalibeb Cheikh Ibra ak daayira Touba mairie ñi ñëpp ñu ngi leen di woon nag ci bis boobu nga xam ni cheikh Moustapha ne ñaan na ku ñëw ci bisub Serigne Touba boobu seexil xaddim nag sedd la waaye ku sedd nag boo deppee sedd say mbokk. Alaaji Moustapha Kane sunu mag sunu xarit ci yoonu murit doon nit ku baax xewle moom nag bu xewlee yoon wépp a xewle Alaaji Moustapha nag nee na bis bi ñim ko baaxoo di ànd rek mi ngi leen ci woo ñëpp ñëpp waaye mi ngi ci woo Serigne Cheikh Diop xéewal Serigne Cheikh Diop xéewal alaaj Moustapha Kane nee na mi ngi ko ci woo waaye Serigne Mass Diop moom Serigne Saliou rakk Abdouwar Diop alaaj Moustapha nee na mi ngi ko ci woo waaye Baye Abo sal Baye Fallou Guédé alaaj Moustapha Kane nee mi ko ci woo di ci woo njabootam gépp waaye Gumbalaay Guèye alaaj Moustapha Kane nee na mi ngi ko ciy woo xam ngeen ne rakk Abdouwar la alaaj Moustapha Kane nee na mi ngi ko ciy woo waaye mi ngi ciy woo Abdouwar Diop da ko teg Touba Tawféex Abdouar Diop nga xam ne wëllëre Serigne Moustapha Kane la barki démb rek mi ngi naan ma Serigne Moustapha dafa yaru Abdouar kon bis baa ngoog ñu ngi la ciy woo waaye nee na mi ngi ciy woo Serigne Fallou Rahman Serigne Fallou Rahman mi nga xam ne fajkatu aajo la doon jàmbaar lii mu yor suñu borom dénk ko mu doon nit ku baax Serigne Fallou Serigne Fallou Rahman Serigne Moustapha Kane nee na mi ngi la ciy woo waaye mi ngi ciy woo Serigne Jili Kanji borom leer Serigne Jiili Kanji borom leer yi Serigne Moustapha Kane nee na mi ngi lay woo ci bis bi bu baax a baax a baax waaye mi ngi ciy woo maam Thierno engagement maam Thierno engagement moom Serigne Saliou Serigne Moustapha Kane nee mi ngi lay woo ci bis bi ne ne nee na bis bisa bisa waaye nee na mi ngi ciy woo Serigne Fallou Galasloo buur daali gaynde kokki Serigne Moustapha Kane nee na mi ngi la ciy woo waaye nee na mi ngi ciy woo xaritam soppeem jàmbaar koo xam ni. ñoom ñaar dañoo ànd te yàlla rek tax jàmbaari Serigne Touba doon nit ku baax muy Serigne bay di mbay Serigne Moustapha Kane ne mi ngi lay woo ci bis bi nee na bis bi sa bisa avocat Seexul Xaddim boobu Serigne Moustapha nee na mi ngi la ciy woo kon bis baa ngoog ñoo ngi ciy woo ñëpp xam ngeen ni bis bi nag Serigne Moustapha at mu jot at mu jot da koy ànd ak daayira Serigne Fallou bi jigéen ñu baax ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk fii ci ñaari tali di ci ànd buñ tuddee soxna Xadi Seck rek moom sëñ fallu tudd nañ ñëpp ñoom soxna Coro kulim di nga juum sëriñ mu Kane nee na mi ngi ciy woo rakkam xaritam doomu ndeyam sëriñ Xaadim Bamba moom itam xam ngeen ni faccatu aajo la sëriñ Moussa Kane nee na mi ngi la ci woo bis bi la waaye mu am jàmbaar joo xam ne sëriñ Moussa Kane nag kooku day wëllëreem doon xaritam mu yàgg jël ay teraanga di ko yóbbu Touba waaye di ko teg ci loxo sëriñ Moussa Kane mu dem di ko ko joxal sëriñ Muntaxa ci yoonu murit gépp nee na mi ngi ko ci woo kooku mooy kan Serigne Thierno Moulay Saw Serigne Thierno Moulay Saw sëriñ mu Kane nee na mi ngi lay woo ci bis bi nee na ñu ngi la ciy xaar nee na bis bi sa la. macha allah ñu ngi tàmbale di woote ñu itam ci ñi nga xamante ni bii dañuy bokki taalibe bi ñu ànd koog ñoom ñu ngi ciy jiital nag Cheikh Samba Khaya moom Cheikh Sidil Mokhtar mi nga xam ne nii liggéeyal sëriñ Touba rek ko ak Serigne baara Cheikh Samba Xaye ñu ngi lay woo ci bis bu baax a baax di la ci jox sa wàccuwaay El Hadj Moustapha Ka nee na mi ngi woo Serigne Khadim jaañ moom Serigne Mbacke soxna Lo gaynde borom tayif di ko ñaanañ ci barkeb Serigne Touba saa borom defal ko tawxeef ban ànd ak moom bis bii nañ ko bëggee di ci woo jàmbaar ba tey bokk ci wàggat du Modou Moussa muy soxna Ndeye Ami Kase ñu ngi koy ci bis bu baax a baax moom it muy jàmbaar joo xam ne nii liggéeyal sëriñ Touba rek moo ko ñor di suñu wëllëre di nit ku baax ñu ko ciy woo Babacar Dia di jàngalekatu alxuraan fële ca Malika moom it ñu ngi koy woo ci bis bu baax a baax di ko soññ ci ci alxuraan ji bu baax a baax ci kaamil ak mu jàpp ci bis bi bu baax a baax di ci woo bu baax sëriñ Habib Biaye sëriñ Habib Biaye moom Cheikh Mamadou Fadal boobu nekk ci Côte d'Ivoire di jëfal murid yi di jàppale murid ci liggéeyal sëriñ Touba jëfam ci réew mii ku ko jeex gis ko ñu ko ci woo bu baax di woo sëriñ Babacar Mbeng fii ci Yoof moom it di jàmbari Serigne Saliou Mbacke di gaynde di koo xam ne nii Serigne bi rek moo ko ñor ñu ko ci woo baax di woo nag sama xarit sama wëllëre Serigne Xaban Gassama seen Serigne Xaban Gassama di faj ko aajo moom itam ni ko sëñ Mandag waxee di suñu wëllëre woo xam Cheikh Mamadou Fadal rek la doy loo buntam ci Serigne Fall mooy Serigne Xaban di woo nag bu baax a baax soldaaru Serigne Touba jàmbaar jooju nga xam ku ko tudd mooy Serigne Mohamed Samb xam ne dara ñuru ko boo ko gisee muy dem bu laajte ci sëriñ bi lay xëy ci ci sëriñ bi lay gont ñu ngi koy woo bu baax a baax di woo sëriñ Fallou moom sëriñ Xabbaan Cheikh Mamadou Fadal moom sëriñ Xabbaan ñu ngi koy woo ci bis bu bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal ci doole Cheikh Mamadou Fadal suñu borom taxawu ko ba lim lépp mu yeggale ko di di woo sunu nijaay Kabou géy moom nag ku ko xam xam sunu diggante moom muy lu yàgg ca ndar ñu fekk ko fu nekk. kàbb di nit ku baax di nit ko bëgg sëriñ Touba di jàmbaari sëriñ Mbacke Bousso ñu ngi ko ci woo baax baax di woo nag Cheikh Ibrahima Ndoye mi nga xam ne ni bëggul ku dul Cheikh Souhaïbou Cheikh Ahmadou Mbacke sëriñ Cheikh Say ñu ngi koy ñaanal bu baax saabarum defal ko tawféex feex leen xamal ne daal ko gis son kàddu gis jàmbaar yi xam ne bis bu mag ñëw na. ñu ngi woote li ñu woote wan daaw te yal nañ ko yàgg a woote ki koy woote yal na ko woote téeméeri at yu tegaat téeméer muy sëñ Moustapha Kane doomi alxuraan jooju. sëtub alxuraan boobu di woote lu mu war a woote ci ñaatali ca wetu jumaay ja di woo jigéen ñépp nag góor ak jigéen mag ak ndaw ko ñu mbay njaay gol bi fa daaru bi daara sëñ fàllu nekk soppee sëñ fàllu nekk xaritu sëñ fàllu nekk di cay jiital xali sekk nag baay fàllu sëñ tubaa di rakkam di xaritam teg ca soxna Faat Diouf mi nga xam ne dafa jeex tàkk nag ci sëñ tubaa teg ci coro jeng sama doom ji nga xam ne moom sëñ Fallou rek lay nooyee guddi ak bëccëg suba ngoon Adama Niass mooy jiitu daayira ba ñu ngi la ci woo di woo ñépp rek comme nañu ko daan defee ca ko ñu may ñaagool bi maam Dieng ñu ngi lay woo sama rak sama xarit ñépp di soppee sëñ Fallou rek ñu ngi woo ñépp góor ak jigéen mag ak ndaw ku dégg publicité bi rek mooy sa woote na nga teel a génn nanga nga teel a wuy si sëñ Moustapha Kane di kenn ci daayira sëñ Fallou boobu ku jàppale ku nu bëgg ku nu yiir xiir ci yoonu sëriñ tubaa yal na nga yeggalee sa sago. di ñëw ci bis boo xam na nag bisu Masaalik la muy Moustapha Kane mu baax mi te yaru di jarbaat ci Alaaji Mbàkke yu bu amee bisam la set ñun ñëpp moo ngi koy defee Grand Dakar en face jumaa ji ñun ñëpp danañ waaj wuy jiko ndax su amee bis di ma sargal sargal boobu yéen ñëpp yéen a ko moom waa Masalik ak murit yëpp la ko defal ndax lépp rek alaaji Mbàkke yu fay la moo ñu bàddil ñun soxna yi moo ñu bëgg moo ñu teg place kon bu Moustapha Kane jógee di ñu sargal waa Masaalikul Jinaan yépp la sargal maa ngi ñaan ci barakatu seexul xadim yàlla na bis bi ñu yegg si ceeg jàmm mu am ci ndam ndam lu mu daan am rek ndam li yàlla na kawe njortam bi barakatu seexul xadim ndax euh, Moustapha Kane dox bi mu dox moom doxinu taalube rek lay dox xam nañ ne moom jarbaat la ci jëwrin waaye moom doxinu taalube rek lay dox kon ñoo ngi koy ñaanal bis bi kawe njortam maa ngi ciy woo ñëpp nag di ci woo daayira di ci woo ñëpp na ñëpp ñëw la set wuy ji Moustapha kan en face. jërë ngeen jëf euh, mbokki taalibe yi nga xam ni ñoo fi njëkkoon a jaar yëkkati seen kàddu sëñ Madak jërëjëf sëñ Modou Mbuub sëñ Mor Gueye ñu ngi leen di sant bu baax ci woote yu am solo yooyu ngeen woote. Euh, bis bi nag ni ngeen ko waxee rek noonu la demee ñu ngi ci sant bu baax sëriñ bi. bi nga xam ne moo ñu defal loo xam ne mënuñu ko fay muy Cheikhouna Cheikh Ahmadou Bamba ñu di ko jéem a sant rek ndax li ñu koy sante sax lépp it moo ko moom waaye di sant bu baax sunu waajur euh, sëriñ Abdoulahi Bamba Kan mi nga xam ne moo ñu jur ci yoon wi yarunu xiirtal nu ci bëgg Sëriñ tubaa ak mbooleem koo xam ne rek bokk na ma ak yow néegu baay muy mag muy rakk di nuyu bu baaxit ñi nga xam ni ñooy sama famille kër ndey nga xam ne ñoom ñëpp samay waajur samay tànt samay mag samay nijaay ñëpp dañoo ànd jàppale ma ci bis bi at mu jot ñoo koy ànd ñëpp maa ngi leen koy fàttali te di leen ci woo di sant bu baax koo xam ni moo dimbali ba lii it man koo saxal di ci góorgóorlu muy suy jëwriñ sunu waajur alaaji Mbàkke yu fay mi nga xam ne moom la sëriñ bi teg fii ci ndakaaru ak li ko wër te yéen ñëpp ngeen maase xam ci ni benn jubluwaay la am benn bëgg-bëgg la am benn yaakaar la am benn wéeruwaay la am mooy sëñ tubaa jeex ci moom tàkk ba tax lépp lu ñuy def rek ñu di ko royee ci moom muy koo xam ni bu ñu ko tuddee rek mën naa ne dootuñu tudd kenn ci ndigalam lépp lu ñuy def ci ndigalam lañ koy defee waaye imaam Basirou Lo ak imaam Khadim loo mi nga xam ne ñoo nekk ji naan ak mboolem waa Masalikul Jinaan ñu ngi leen di woo bu baax ci bis bi euh, di ci woo bu baax nag sëñ Abdul Fatah Sall moom Baye Abbas Sall di suñu wëllëre di suñu xarit di suñu lépp donc ci woo sëñ lamin Faye suñu rak min nañ brodori moom Cheikh Mouhamadul Muntaxa noo ngi koy woo bu baax ci bis bi sëñ Cheikh Khadim Fall mi nga xam ne mooy bërëm première mais di sëtub maam Cheikh Ibrahima Fall làmp baabul muridina te am taxawaay bii mu am ngeen xam ko yéen ñëpp noo ngi ko ciy woo bu baax a baax sëñ Moustapha Fall murid Sadix noo ci ko woo bu baax a baax a baax ak rakam sëñ Ablaye Fall ñoom ñëpp ñoo ngi leen di woo ci bis bi Ah, di ci woo bu baax nag Adja Fat Seen suñu yaay nekk fee ci Sicap Mbao di suñu yaay di suñu xarit di suñu lépp di koo xam ni kenn la ci ñun noo koy woo di ci woo mbooleem ak njabootam soxna Fat Mbacke aaj suñu yaay nekk fii ci grande Dakar noo koy woo ak mbooleem famille sant aj ñëpp soxna Fat Sey ak mboolem waa aajin waaye soxna Fat Mbacke Ñas suñu yaay nekk fii ci marché Asalem noo koy fàttali te di ko ci woo ñu ngi ciy woow suñu yaay soxna Aminta ñale ba nekk fii ci boori Masalikul Jinaan di suñu yaay di suñu xarit donc ko ciy woo di ko di ci woow mboolem ak njabootam di ci woo sëñ sëriñ Maamun mum sëriñ Fallu di sunu sëriñ di suñu lépp nga xam ne bis bi moo ko moom bisama di ci woo soxnaam soxna nguy siise mi nga xam ne madame Mbakke moom it di kenn ci ñun di kenn ci daayira bi di daayira bi sëñ Fallou rawatina soxna Sali Dieng mi nga xam ne daa nekk ci biir daayira bi di ci woo suñu yaay soxna Soodu Xuma mi nga xam ni moo yor julli géej gi di suñu yaay di suñu jëwriñ di suñu xarit donc ci woo bu baax soxna Anta Ba soxna Anta Gueye euh, madam Bey di sama seexu Makka donc ci woo di ci wow borom këram euh, colonel Assane Bey walla général Assane Bey ndax léegi ab général la noo koy nuyu te di ko ci woow te di ko ñaanal garaat di yokk bu baax a baax a baax di ci woow xaadim Guèye alaaji baara xaadim Guèye alaaji baara ku tudd lenn lu bokk ci alaaji baara rek incha allahu rabbi sa xel dem ci moom loolu sëñ Modou Mboub dina ci ñëw noo ko ci woo bu baax a baax ñu ngi ci woo suñu waajur sëriñ Mafal Fall mi nga xam ni mooy représentant mboolem daarul muxti gépp di suñu waajur di suñu lépp noo ko ci woow di ci woo bu baax suñu waajur Baye Serigne Amar nekk fii ci wetu télévision Touba TV muy daa nga xam ni mbooleem homme de tenue yi moo leen di ñawal waaye di ko bëgg Serigne Touba di sunu waajur di sunu xarit di suñu lépp di ci woowit bu baax a baax ki nga xam ne mooy Serigne Matar jenn course sociale di kenn ci ñun di suñu wëlëre di suñu sëriñ di suñu xarit noo ciy woo bu baax a baax a baax bis bi daal la ngi noonu bisum ñëpp la bisub jullit ñëpp la bisub murit yëpp la bisub taalibe yëpp la xam naa ni nag am na ay marraines ak i ak i ak loolu sëñ Modou dina ci ñëw léegi xam ngeen ni ki nga xam ne mooy sëriñ Bamba Diop moom sëriñ Abdul Karim moom sëriñ Fallou mooy parrain bi waaye xam ngeen ni bis bi dama ko tuddee maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Issa Dieng ak sëñ Ahmadou Ndumbe borom xabbaan cërub Cheikh Ibrahima Fall bi nag dama ko jox sama ñaari rakk yoo xam ni ñooy man maay ñoom muy sëriñ alaaji fay di doomi alaaji mbàkk yu fay jëwriñ ak sëriñ pam màggen mbuub rakam nga xam ne ñoom ku tudd Cheikh Ibrahima Fall sa xel dem ci ñoom ñoom ñoo moom cërub li nga xam ne mooy maam Cheikh Ibrahima Fall muy parrain bi kon ñoom it maa ngi leen ci woo te di leen ko fàttali bu baax ak mbooleem nag euh, famille fayin bépp ak mbooleem wëllëre yi ak am di jàmm yi ak ñi nga xam ni sax tudd ñu leen ndax ñi ñi ñu tudd la ëpp téeméeri junni yoon ñii ñu tudd daa am ñoo xam ne mëneesu leen a ñàkk ba ñu tudd rek waaye bis bi ñi ciy ñëw te kenn du leen tudd ci rajo ñoo ëpp téeméeri junni yoon kon kuñ am lan teel rek ngay wëllëre wala mbokk wala am di jàmm wala mbokkum taali bi wala jullit nongi lay woo ci bis boobu nga xam ni bisub sëñ Tuubaa la ñu di ko ci sant asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bis baa ngoog wata baa ngoog cant gaa ngoog su loxo patronage monsieur le ministre de l'intérieur di kenn nag ci Moustapha Kane xaritam soppeem waaye taalibe Serigne Saliou ak kan Zahra Iyane Thian ministre de la microfinance kenn ci Moustapha ak Ndeye Saly Diop Dieng ministre Moustapha woote bis bi waaye kenn ci Moustapha ak Mbaye Ndiaye ministre d'État di kenn ci Moustapha Jean Baptiste maire Grand Dakar Barthélemy Diaz maire de la ville de Dakar waaye Bamba Fall maire de Médina monsieur Pala Samb maire Fann Point E amitié ma dikke ñaan ak taalibe bi Serigne Touba Pape Diop honorable député moom Cheikh Abdoul Khadr waaye ak kan Cheikh Alsane Sène taare yàlla ki bëgg rasulillahi l'homme de social waaye kenn nag ci Moustapha buy dugg Touba woo Moustapha waaye buy ñëw Masalik nag woo Moustapha Cheikh Alsane bis boobu sa bopp waaye ak sëriñ naa Saaxo mara VIP ki nga xam ni ku wootel sëriñ bi nag wooko ko kooku nag kenn la ci Moustapha Moustapha nga koy woo ak kan sëñ Abdoulaye Diop xaas mi nga xam ni ah yàgg naa xaas moom it nag kenn la ci Moustapha ak kan soldaarub sëriñ Touba Mohamed Sam mii bégal jànkatu xaside yi mii bégal taalibe sëriñ Touba yi ki nga xam ni ah soldaaram nag jëmawul fenn fudlu ci sëriñ Touba Moustapha na mu ngi koy woo waaye waaye Cheikh Baara Ndiaye def gis ah Moustapha ne mu ngi lay woo ci bis boobu waaye waaye bis bi nag ñan lanu ko tuddee ah maam Cheikh Ibrahima Fall lam Babul Mouridine ak kan Cheikh Issa Dieng borom Ndiéndéeg Lëggéej ak kan sëñ Ahmadou Ndumbe borom Xabban waaye waaye nag ñu ci rendre hommage ah Serigne Modou Aminta Fall jàmbaar ji Baye Fall bi ki jeex takk ci Serigne Touba waaye jeex tàkk ci Cheikh Ibra ak Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Fallilu mi njëkk wutu wuutu maamam waaye waaye nag di ci woo mu Moustapha mi nga xam ni mooy xalifu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara waaye woo itam Serigne Fallu mi nga xam ni moo toog toogaayu Cheikh Mouhamadou Amint waaye bu ñu tuddee Serigne Baara nag ah xel yëpp dem nag ci Xaadim Gueye moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ah kan mooy pare bis bi Serigne Bamba Diop jëwriñu Cheikh Abdoul Karim ca ñàgg jeex takk ci Cheikh Abdoul Karim Mbacké faddilu waaye waaye kan mooy marraine bi nag ah soxna Fama bi moom soxna Ayda moom Serigne Saliou mi nga xam ni nag ah bi nu ko joxee marraine bi ba léegi toogul ngir waaj nag bis bi ànd ak ñi maam ñëpp ñëw fekk si Moustapha waaye ku ñuy dellu njukkal nag ah Cheikh Abdoul Karim borom makaarimal axlaax ki nga xam ne moo jël ndaw ñi ah tegle nag ci siraatal mustaqim waaye ki nga xam ni nag boo ko tuddee nag sa xel dem ci Sëñ Fallu waay waay bis boobu nag ñu dag jagleel Cheikh ma Fall ah waay waay Moustapha daa jël nag alxaaji fay bay Fall mi nga xam ne nag doomi jëwriñu mbàkk yu fay la ni ko nag segam Cheikh Ibra da ci am cër ah jël naa nag cërub Cheikh Ibra boobu nag jox la waay waay ak kan doomu ndeyam sëriñ Pape Maguette bu bay Fall waay waay ñii ñoo bëgg Cheikh Ibra moo tax bi Cheikh Moustapha tuddee Cheikh Ibra rek jël ñaari jëm yi rek toftal leen ci ah ñu ngi ci woo soxna Baali moom Cheikh Amadul Muntaxa mi nga xam ni itam yëpp mooy Cheikh Muntaxa ak soxna Jaara ak kan ajaratu moomi kebe mi nga xam ni nag bu ñu ko tuddee ah xel yëpp nag dem ci Serigne Saliou waaye nag dem ci Serigne Touba ak kan ajaratu gàmmu Jóob Masaalikul Jinaan doon jàmbaar lool ah Moustapha nag nee na woo na la ci bis ñu ngi ci woo Cheikh Malick Sène moom Serigne Cheikh Ummi moom Serigne Fallilou waaye woo ci nag soxna maam Fati xaar yàlla ak soxna maam Fati juma benn tali Moustapha ne bis boobu a ah, buñ ca yeggee nag ah dina am ñoo xam ne nag dana leen sargal ay baayam ay wëllëreem ay soppeem Serigne Amath Bousso ak daayira Touba Ndindi ñu ngi leen di woo ci bis bi waaye ñu ngi ci woon nag jànkatu xasaayit yëpp bàyyiwunu kenn ak ñan ak ñuy waxtaani Serigne Touba les conférenciers ah waaye waaye ni ñëpp ñëw nag ci bis boobu nga xam ni mooy bisub Serigne Touba programme bi nag 21h mooy mise à place waaye waaye nag ah 21 vingt 22h nag jëm nag fajar Cheikh Moustapha ku mu tantal Serigne Touba sëñ Touba nag kan mooy jëwriñam rasulillahi ah Moustapha war naa tàntal sëñ Touba bis boobu nag ku ci ah Cheikh Madul Xaddim nag fat la ku mu fat nag dootoo fanaan biti cey la set ku bëgg a set daal ñëwal la set ci bisu Mustafa tawil lana umrana sxi lana badanan wa amlana rusawa tawbi xayalaw wa damiral kula dain tudiru bina qabla al usuli lana يا الله يا الله وكلنا عزيما من كل ما لكات وناجنا من بالا يا دهر يا الله